téléspectateurs ak mbokku internet yi nga xam ne dañuy suivre seen chaîne bi nga xam moo di Saint-Louis TV da leen ak jàmm na leen di comme saa su nekk rek ñu koy euh, li nga xam moo di ñaaraaka yi donc ñuy bëgg waxtaanee tuuti ci li nga xam ne moo di euh, Baye Fall ak tamit yi nga xam moo di Mame Cheikh nga xam ne moo di Cheikh Fallou Ndiafandal nar a am ay waxtaan nag yu bëre jëm la ci Baye Fall balaa ñuy sore dañ koy bàyyi ñu nuyoo ñi nga xam ne ko seetaan Cheikh Fallou ñu ngi lay char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 xarala gi mhm. ak mbooleem seen auditeur ak auditrice yoo xam te ne ñoo ngi leen di topp boobu léegi ñoo ngi siyaar ñëpp di tàmbali sama siyaar nag ci sama yaakaaru tey ëllëg muy Cheikh Tuna Ngom Marfal di siyaar suñu wajur wu jigéen soxna wa Cheikh Mboup ak mbooleem mbokki taalibe yeeg mbooleem taalibe yi aju ci suñu jëmm ju xeebu ji muy waa yoonu ndam ñoo ngi siyaar ñëpp mel ni nuyoo bi am na solo <laughs> macha allah donc bu ñu gisee nga toog nii rek dañuy gis ni jëmm Baye la toog te tey bu ñuy waxtaan ci Baye Fall sax ñuy waxtaan ci Baye Fall te duñu jaar ci ki nga xam mooy buntu bi muy Maam Thierno Fall tey boo doon wax kan mooy Maam Thierno Fall ana nañu koy wax tey de ku yéeme la koo xamante ni xëy na suñu demee ba ci kanam dinaa la mën a wax lu bari ci moom ndax pour nga xam nit ki faaw nga xam dalilam masatuhu wa dirasatuhu mm-hmm. muy nga ne àdduna fu nu naan njabi ndax way juróom bu nekk ñu ngi nekkoon ci wàq yi mooy kër nday Cheikh Ibrahima Fall njareem mooy kër baayam nga xamante ni ci askan wu riche la bokk ci Kajoor waaye li ma lay wax kan mooy Cheikh Ibrahima Fall bi muy ñëw jamono lu bari feeñ na ci gën ak àdduna Cheikh Ibrahima Fall ku ñuy wax maam Abdou Awa Ndiaye nettali na mbir mu yéeme ci Cheikh Ibrahima Fall nee na Cheikh Ibrahima Fall keroog bi muy gënee àdduna Mhm. karaw bi dafa fees dell ci yaram wi mu indaale ba bële lu toll ci bu biir. muy nekk ci zaayir bi loolu bokk na ci kéemaanu Cheikh Ibrahima Fall ci saayar mhm. ñu wooyu maamam ju ñu wax maam Demba Njeri ngir mu xool kookee lan la waaye Cheikh moo yéeme du lu nit mhm. moo tax soo ma laajee kan mooy Cheikh Ibrahima Fall dafay daal di xaw a euh, rëy ci yaatal bi mu gënee àdduna soxna Seydou li mu njëkk wax mooy indi naa mbër ci àdduna indi naa mbër de waaye xaw ma fu muy bàkkoo mhm. te boobu Cheikh Ibra liir la waaye yaakaar naa ne fi mu toll nii mm, mbër yëpp xam na ni Cheikh Ibra joggi mbër yi mhm. ndax surtout Seydou Maam a wax na ko ni ko xat foxtata jall yaa jéggi mhm. muy naari waaw ñoom nga xam danaan am xam-xam ñoom lañu dem jàngi xam gis nga ni mu bokkee ci réew mi bu ko bokkee ci réew mi fi nga fi mu bokk dafa riche fu baax la bokk foo xamante ni ci càll la goo xamante ni soo ko toppoon da ngay daal di dugg ci sërif yi boo toppee askanu Cheikh Ibrahima Fall mhm. ndax Ahmadou Roqee Fall mi way juróom mhm. Roqee Ndiaye way juróom mhm. seer mañam ba boo boo ko toppee ba ba ci njaajaan njaay doo génn wér buur wala benn dammel fan ka dammel yi ci kajoor ñett yëpp ay maami Cheikh Ibrahima Fall seen askan nag ni ko nit ñi di jëlee comme naan ay ceddo lañu woon ak nangam Cheikh Ibra seen askan boromuk alxuraan lañu woon boromuk diina lañu woon lu baax rek lañu xam mm-hmm. daal di nag ca démb foo dem da koy fekk jàkka mu jàkkaarloog néegu ceddo yi ñii di jàng fii ñii di màndee fee mm-hmm. léegi nag nit ñi nag heure bu ñuy leeral mbir li négatif li ñuy gën a bëgg génn ci yow mm-hmm. waaye Cheikh Ibra dundam gii uh, ci gane àddunaam ba fi mu toll négatif amu koku moy Cheikh ibrahim Fall la sukaa bi ngone jey isa jey fatim kan babul baabul muridina nga xamantene ne mm. fanweeri dammeel ci kajoor ak ñett yépp ay mamam lu gis nañ tamit euh, ñewam ci kër ku teddi mën nañ ñi fa mujj fa waye tay bu bu nu waxee rek ci yoon bi rek mom lañ wax ni babul muridina tay manam mm. liggéey bu mu fa liggéey ci li nga xamni dafa dafa dafa dafa ñëw fekk fa ay ay ay nit la mo waral tay mu mëna am lu mu am yëpp ci kaw ñoom ok jërëjëf gis na suñu borom dafa organiser wu suñu borom dafa organiser wu lu ci nekk su waxtu woo jotee rek kaka war a fësal dana ko fësal li kulli shay'in sababun mbir mu ne dafay am càlla la Cheikh Ibrahima Fall laata muy ñëw Sëñ fan weeri taalibe ak juróom-ñeent ñoo fi nekkoon ak Sëriñ Touba muy quarante muy quarante trente neuf la woon ak Sëriñ Touba su ko defee <laughs> mhm. ña fi nekkoon ña ca ëpp ay bokki sëriñ bi lañu ku mel ni Thierno Ibrahima Fatim Ndaamal Daaru nga xamante ni mhm. moom bi mu gënee àdduna loon ko bàyyi bàyyi leeg suñ Tuubaa xam ne mooy léppam mhm. léegi nag jëmm ju noonu su melee nii ci magam du ko mën a wane borom daaru bu wane woon suñ Tuubaa heure bi dan naan cheikh rek moo wane cheikh baam ndax mbokk waaw mhm. te suñu borom du doxalee noonu mbiru suñu borom amul askan parce que bi mu bëggee samp yonente bi alayhi salaam mu gën ñëpp dafa tuxul ndeyam tuxul baayam tuxul ay maamam ba kenn du ni maa ko jàppale ba mu yegg nag mu xar dënn bi dindi lépp luy kañaan ak soxor teg ci critère bu boo xamante ne kenn mënu koo joggi wa innaka la'alaa xuluqin aziim léegi jikkoy tedd yee tax mu gën ñëpp jikkoy tedd yi la moo ko dindi ci moom pexe bu sunu borom bi sunu bu bu nammee dara day def pexe Cheikh Ibrahima Fall laata suñ Tuubaa di ñëw la tax mu mën ñëpp daf fi fekkoon ñu doon sàkku si yàlla xamni alquran lam fi doon jang ci ak xam-xam ak xeet yu mel non mhm. cheikh ibrahim bi mu ñëwee dafa ni top na tànk yalla bu mu dugg mhm. ko seigne touba mo cheikh ibrahim mom cheikh ibrahim seigne musa kané tali na néna nee na nga yenn cior yenn ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yoni ko fa bur Cheikh ibrahim Fall top ci pexe mhm. mu gis fa Cheikh Adama Gueye sanni mbiram dal di ko moy mu won ko Bamba mbër bu reuy seigne bonan ko fofu xé Cheikh Ibrahima nee na mu wax ko tegtal yi fi moom sëñ Bamba wan ko li fi moom nga xam ne gis na ki ko moom mu daal di jël mbiram jox neen damaa topp tànk yàlla ba mu dugg ko gisee fu mu jaar génn ma jaar ko mu njëkkoon nekk laata ñëw sëñ mm-hmm. Bamba Sàll mm-hmm. mm-hmm. moom ak sëñ Ahmadou Bamba Mbacké ñoo bokk kenn ku leen tuddee ñu sëñ Ahmadou Bamba Sàll Saalum kee nag mooy borom Touba kii mooy sëñ Tayba di nga dégg ca way wa sëñ Moussa Ka naan mu daal di dem ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar mm-hmm. fekk na Bamba jooju ak Ahmadou Bamba Mbakke yaakaar jàmm ñi muy wër bokkunu mm-hmm. ñooñu nag seen wayjur yi sëñ Touba moo euh, sëñ ah, sëñ Mor Anta Salim yi wayjuru sëñ Touba mm-hmm. ak wayjuru sëñ Tayba Dakar sëñ Ahmadou Bamba Sall Saalum moo leen jàngal ni leen ku ci nekk da nga am doom joo xam te ni mbër lay doom daa maa bëggoon ngeen barkeel sama tur ngir mu jëm ci kanam mu tuddee ko sëñ Ahmadou Bamba Mbakke kee tuddee ko sëñ Tayba Cheikh Ibra Fall pour nga xam personnalisme moom keroog bi mu gisee sëñ Adama Gueye ak Cheikh Mokhtar Touré dafa leen may xeeñ katub yàlla soo ko waxee tey jii ñu ne danoo dof waaye jigéen ji war na lor su la rombee nga xam ne kii nii am na lu ne ci moom waxuma laag na ko luy wax fees dara leeru yàlla yi loolu nag ku fa yeggewul mënoo fa xam tey jii su may tuuroo parfum bu tudd nangam ñu bokk ko wax tuuma ko tuuree nga xam ne sa parfum bi laa la mun leen yéen may xeeñ katub yàlla la fay xew-xew fa ci tënk ñu yóbbu ko ba ci sëñ nee na keroog bi mu ba tabbi njaareem mhm. dafa dégg malaaka yi mu xaraboona yi di bakk dundug laay naan ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën mu ges na seen yaar euh, sëñ euh, Cheikh Adama Gueye xanaa foofee kenn new fa mhm. Cheikh Adama Gueye ni ko am na ñu fa nekk ko xanaa déggu leen man mi ngi jóge ci Taïba Dakar di mhm. xam ne kii dem du como nee na mi ngi dégg malaaka yi mu xaraboona yi ca kaw ñuy bakk naan ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën mu ges ni Cheikh Adama Gueye xanaa foofee kenn new fa Cheikh Adama Gueye ni ko am ah kañ am na ñu fa nekk mu ne xanaa déggu leen malaaka yi muqarrabuuna yi la ñuy bàkk ñoo ngi naan ku fi njëkk gën kon foofu kenn jëkku fa ñu ngi ko yow yaay dégg bàkkub yàlla léegi nag sa wax yooyoo lan tàmbalee jàpp ni kii daa matal daa wérati hmm. bi mu demee ba dugg njaareem dégg ñu soppiwaat bàkk bi daan ni bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf mu ne xaa déggu leen la ñuy bàkk xanaa ña fa nekk danoo bëggul xanaa ña fa nekk danoo gëmul xanaa danoo mënta jëf ñu tontu war ka lan ko tontu woon bi mu nee njare tànkam ci biir njaareem ba jàkkaarloo ku tedd gi mm-hmm. ci ëtt wi mm-hmm. tànk yi dam moom Seex Ibra daal ko mm-hmm. dañ ci dégg nag bàkk bu mujj wi ñu jëf jël lu waaye moom jëf jël lu waaye jëf yàqu moom bu njëkkoon loolu nga daan dégg xiir yi du ko bàkk jëf jël lu waaye jëf yàqu moom waaw ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën ak bëgg gëm jëf yooyu doon bàkk yi bokkul ak léegi na nga xamante ni maanaam moderniser nañ ko ba dugal ci bari Cheikh Ibra nee na keroog bi mu xamante ni maanaam daje nag ku tedd ki ci njaareem ba muy génn kër suñ tey ba daa yow suba ko ndax li ma fi doon wut gis naa fa mu nekk sëñ tey ba ni ko ana lu waral loola mu xamal ko ni ko carrément da ngaa yeewoon suba gis ma ma yeewu suba tàggu la ngir sëñ bi bañoon na ko bàyyi ca booba waaye fulla gi ak am fulla mun ko da ngaa woon gis ma ma yeewu gis la su ma yeewoo tàggu la nga war maa bàyyi soo ma mënta bàyyi ma xam te maa fi indiwoon sama bopp it ma yóbbuwaat sama bopp hmm. nee na keroog suñu tey ba da koo ne ko tëb foo jublu yaa ngi hmm. ko ñaan nee na keroog bi nga xamante ne dajante naa ko tedd ci la xam ne hmm. nekk yiw yàlla nii wal yor njëriñal lu leen di lor ku yor jàmm ñi te yoroo lu leen di lor foo jublu jàmm ñi jublu ko dëgg Cheikh Ibrahima nee na keroog fa la jébbaloo joxe boppam fekk gars yi di jàng alxuraan moom mu ñëw ni wut si wut alxuraan yàlla lay wut si ku topp tànk yàlla ba mu dugg ci borom doo cuune wallaahi nii wax ñàkk jàngu Cheikh Ibrahima Fall bu la nettalee taari xam sax da ne kii bi mu ñëw fees na jàng xamante ni maanaam euh, nee na seet na Serigne Taïba Dakar ci njàngalee xami pexe ku dem ba mën a peese ki nga xamante ni moom nga war a àndal booba doo cuune bi mu ñëwee nag dafa xamal ne yàlla lay wut si topp naa tànk yàlla ba mu dugg si fii mhm. ñu jéyante soo fay déyante sëñ Tuubaa xamal ko ni ko loo fi amul yaa ko xam sa bopp mun ko lu ma fi amul yaa ma ko yéenal tey man mooy fulaj sëñ ko ni li may sàkk ci àdduna bu ma fi ñëwoon fekk ma fi sax xabru yonent bi fekk ma fi dara loo xam te ne askanoon na fi yonent bi ñun ma fii mhm. bi mhm. danaa ko fi sàkk ko lii may sàkk ci àdduna sa biir kër gii su fekkoon ñëw naa fi ñun mbaar mii rek la doon fi man Ahmadu dina ko am andi mhm. ma daray àdduna lépp lu may liggéey yow maa ngi koy jaayante yow ngir yomal xiyaamatul loo fi gis nii dara bokk ci cherafal Cheikh Ibra ay mbiram ëllëg lañ koy xam mu mu mu mu mel ni tamit mu mel ni tamit dañuy dégg parfois lu ci ñu naan Cheikh Ibra amul morom amul léegi ci ñàkk morom googu lañu jëm si nii waaw moom morom boobu noonu laa bëgg xam ci ban anam la daa ñëw fekk fi ñuy jàng alxuraan moom muy wut si yàlla mm-hmm. bi mu ñëwee ba yegg si foofu ak sëñ Tuubaa ban déyaale la ñuy déyaale mm-hmm. mu yow jëtti fan gis sëñ bi dem ci daara di jàng ji taalibe yi di jàng ku mu yónni bu la neexee dem bu la neexee topp mm-hmm. ku mokkalu sa téere bu la neexee nga ni damay jàng ku sëñ Tuubaa toog ci kaw bu la neexee nga toog ci kaw ci jamono ji te jamono jooja mm-hmm. mu def fa ñetti kër ba gis kër gi ni muy doxee yëpp mu soppi doxalin wi li lay waral amul morom mm-hmm. daat ni sëriñ bi waxal jaam ñi li la sa borom wax ci jaam ñi fajar gi bu sëñ Tuubaa jógee di yeete ci kees bi dafa naan jóg leen ngeen waajal jàngi jóg leen ngeen waajal julli mm-hmm. Seex Ibra day toog ci ginnaaw ni ko yàlla wax loowu la loola yàlla wax loowu la loola ba ci ñetteelu fan ba ci la sëñ yow woo mboolam ba mu ñëw bi Seex Ibra jax jaxalee yëf yi ni rabbi shahbaka lii biir himma wala rabbi bi si faqat mhm. képp koo xamante ni wut yàlla la fi tax a indi ñëwal nga toog ku fi ñëw di jàng si wala rabbi bi darsi faqat bindal tuma kenn te loolu ñàkk morom ngaa ngi tàmbali mhm. mu ñëw nag soppi kër gi ñett daat ni fële yi di yem ci kees bu njëkk bi mhm. ñaareelu kees bi fala mbaxane yeeg kaala yi di yem ndax booba seex dafa yomb ku jàng alxuraan ba ma ko ko da nga wut ab kaala ba si sa bopp mu ne ñetteelu kees bi ku fa tollati damaa bëgg ngay raam jëm Sëñ Tuubaa maytuma kenn mu dox jëm ci Sëñ Tuubaa maytuma kenn Sëñ Tuubaa toog nga toog ndox moom maytuma kenn Sëñ Tuubaa yónni la ngay dib dibal maytatuma kenn sax mu toog tàllal tànkam ci kanamu Sëñ Tuubaa encore sama doom muy taalibe loolooy ak taalibe mm-hmm. boo ko dee dégg loolooy ak tarbiya mm-hmm. ndax ak tarbiya bokkul ak taalibe bi mm-hmm. différence bi waaw euh, ak tarbiya mooy yarin yarin ak taalibe bu xasee ba nekk ci yow mooy li ñu la yar sotti na day mën la diw ak lantinoor l'entraîneur du téye jiw waxtu woo xasee ba am ak tarbiya rek ak par bi dikk na ci yow mm-hmm. loolu la ñuy wax wa hab lana al aadaba wal mazaaya mm-hmm. al adab qabla al amal mm-hmm. teggin mooy jiitu ci yow xam léegi nag bu teggin nag xam-xam dajaloowee ci yow rek ñu ni borom xam-xam bu fees dell la loolu ab par bi mu mu mu mel léegi nag loolooy a ñàkk morom bi ku fekk sa kër baay nii mu mel mhm. ñëpp yëpp sa baay teg ko fi ñu ko war a teg mhm. jox lu ko gëdd bi ko yàlla war a jox mhm. bu soppee doxalin bu toll nii mun na ne kii du seen morom wala est-ce que koo mën a gën du seen morom dañuy dëgg di way janjal mu mu mel ni gis nañ gis nañ ñu si a bëri parfois ci Baye seen i karaw baa ngi sol seen ay sagar ndax loolu cosaan la ci Baye Fall wala ab ab ab ab ab li nga xam ne boo ko gisee rek xam ne koy Baye Fall wala li xam daf ñoo neex ko waaw léegi laaj nga question bu am solo. xam nga nit ñi dafa am lu leen sonal. Cheikh Ibrahima Fall ndax nit ku nekk kay sa wasila mooy sa tegtalwaay mooy sa dalil. Serigne Touba dafa waxoon huwa nabiyu wa rasul wal xalil wal xabib wal imam. huwa dalil yonente bi sama tegtalwaay. ñun en tant que Baye Fall Cheikh Ibrahima Fall mooy sunu référence. waaye faaw ñu ràññee lan mooy Baye Fall lan mooy Rastaman. ak lan mooy fecckatu sabar ak kan moo am lugu def ay lox tout simplement mhm. man fàllu mhm. lii nekk ci samay bopp ay njañ la mën naa kaa gis gars yi gis ko déedéet maanaam lii nekk ci sama bopp ay njañ moom dafa xaw a dañ kumba <laughs> waa déedéet ay njañ la macha sama karaw yi bopp la jokkuma ci karaw yi kenn ah, léegi ci gàttal mhm. kenn du ma seen ci sabar may fecc du ci feccum sabar du ci tuxum biiñ du ma ci naanu sàngara mm-hmm. du ma ci taxawaaloo ko dekk ci bërëb yoo xam ne ku ma fekk da nga naan Baay Faal bi lu mm-hmm. lépp loo xamante ni karaw bi sëriñ bi nee nii sama karaw gi ñaan tufli ni ma takk koy njañ mm-hmm. sañatuma koo wat te jokkoo ma ci sëriñ bi sañatuma koo wat te jokkoo ma ci sëriñ bi bokkul ak nag tey ji benn Ousseyn bu toog ba mu yàgg am lugu roy sëriñ ti laa la faal ci sëqal karaw gi ba mu neex ko mu ne naa ko lépp ba mu neex ko mu ne naa ko jàpp ay lox diko démé plage diko démé demee dancing ya di ko demee du ak bay fall loolu du ak njëg da mel foofu doguma wala mais moy li suivre dañ wax lu baax ngeen roy lu bon ngeen rom waaw kay nak mhm. légui nak su fekké ni loxu yi moy tax nit ñi bokku ci mhm. suñu ñibbee jame yi xam ñun duñu talibi Cheikh <laughs> wala déet ah, muy dëgg fa la gën a liggéey waaw ñoonu ci gën a dofle te am li jëm ci wunu ndax roona wala saay fi ne da nga ñëw sax ñu la defal ma room ak defal may dal yaangi ngi dégg Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. la waraloon kawar gi ci moom mm-hmm. ngañ yàgg na fi yonente bi alayhi salaam da ko amoon mm-hmm. soo demee ci wat masi marsiyaat euh, mu sëñ Moussa Ka mu ngi naan Moustapha yéenam yu saq ya ànd ak njañ la far di melax kon yonent bi dafa amoon ay njañ alburaax mi waroon yonent bi mu dem ràññaane ji dafa amoon ay njañ taarix la euh, Cheikh Ibrahima Fall élégance pour nga tal ko dafay fekk nga liggéey ba toog ci bureau mën di sol costume bu baax di sol yu baax yi nga bëgg kii waaye nekk ci daara di tarbiya ak dem di watu yekka defaruwaat ak yeesalaat Seex Ibra tal ko noonu mm-hmm. mission bi mu chargé woon ci Sëñ Tuubaa dafa métti woon métti koo xam ne tal woon defar boppam ba dem ba kawar bi noonu la mujjee mel mm-hmm. loolu indi karaw dem ga it mm-hmm. bu ko Sëñ Tuubaa sante dara du ci bëgg yokk dara fi mu toll nii sama njañ yi bu ma yen loo woon tey di booli bu tàng su ma ne ko sàcc dajale sama njañ yi teg ko mën naa ci kaw doon téen mm-hmm. moom nag sëñ Tuubaa du mm-hmm. mm-hmm. te it amul woon jotu bu mu ko defaree wax bu mu élégance woog nangam ak sànga lii lay waral ak njañ bokk la nag lii ngay gis ci mi ñu def ci ay pertaw ñu def ci ay version rouge nekk ci sabar yi fecc ba ni saay ni barke maam Serap Fall Baye Fall la mën naa nekk ab Baye Fall wax dëgg yàlla ndax Baye Fall daa xaw a kii waaye euh, Cheikh Ibrahima romb na foofu. mu mu foofu mu mel ni mu mel ne bëggoon naa ma gën a yaatu mais sama waa ji mi may signalé ñu ngi def bëreetul. Ah xam nga si ay minutes xaju si ay waxtu waxtuma laak euh, émission bi toll nii di xamal gars rek que dafa première partie bi la am na si yeneen yoo xam ne ñu koy waajal ndax fi màggal Tuubaa incha amoon ay waxtaan yi nga xam ni day day gën a yaatu euh, pour tënk rek ndax def na ma ñaari question non ba xam naa yow ma koy may rek hmm? donc bu njëkk bi mooy gis nañu ku jug rek. ndax wax nga ko léegi-léegi mais pour mu gën a mu gën am solo ku jug rek wala ku bëgg tuub ñu bay Fall laa bëgg nekk ndax bay Fall dafa yomb ba ku bëgg tuub baa ku bëgg jug ñu mën damaa bëgg nekk Baye Fall ku sax su mbedd sax ñu ah akay Baye Fall nga bëgg ñu teg boolu añ raxas woo nga lekk ñu ne ah moom Baye Fall ndax daa yomb ba nit ñi mën ko yomb la noonu nga mën a saaga ndey nga mën a julli sa wàññi la ak julli beeg woor beeg yooyu noonu te pourtant nag tabaski man li ma gën a jaax mooy tabaski bu jotee da julli Cheikh Ibra yombul wax naa ko ci ay télé yu bari gis nga danaa la wax tey ji benn mbir su Baye Fall yi demee jàngi jës bu murit ñoom ñëppay tekk seen laxasaay dem doon ji jëm Baye Fall bu yow suba day jàng xaaju alquran li askan wi di bëri ñu naan diw tijaan la diw xaadar la diw murit la diw laayeen la Cheikh Ibra Fall képp a fi am doom joo xam ne bu ne sëñ Bassirou Fall nga ne alquran te suñu borom moo ne alquran maa farat naa fi kitaabin min shay'in fàttewu ma dara lépp dëxën naa ko ci biir dama lay jox juróomi critères yoo xamante ni Baye Fall mënu koo ñàkk. Mhm. Baye bu yow suba dana jàng xaaju alxuraan. Mhm. Baye Fall amul soxla ci boppam. Mhm. maanaam boo déggee amul ci boppam mooy ndigal la ko tënk ci lépp. waaye koo xamante ni boo yow suba yaa ngi say besoin bopp ba ngoon jot. boo nee ab Baye Fall nga it sa bàyyi foofu nga rek fa nga nekk. <laughs> dégg nga loolu waaye doo ab Baye Fall. <laughs> ñaata ci loolu. képp koo xamante ni yaa ngi yow du matin au soir nekk ci say besoin bopp. boo nee Baye nga it. sa baay bi foofu nga nekk. waaye du ab moom dégg nga loolu. ñaareel bi. Hmm. julli alquran dafa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa lazikrullahi akbar hmm. wallahu ya'lamu ma tasna'un hmm. pour rek maanaam ma mën a dëxañaale euh, question bi ci biir. julli suñu borom dafa ne deful ci dindiwul ci nit lu dul wëlis lu bon ak lu mu sit te nit ñaa ngi génn ci buntu jàkka ji tey lañu gën a mën a jóg. xale bu jigéen bii bu romboon tisbaar ci booru jàkka ji bu génnee paa yi ñoo koy xool ba ni daj tanaan ak sol lu bon te moo ne teggiwum seen bët ci moom. muy maandu waaw léegi bu fekkee ni julli lu lu sib lay dindi ci yow ak lu bon ku fi baax ah du dem jàpp geeg nangam nee na wala sikrullahi akbar tudd gi ni tudd yàlla ci biir julli bi mooy sami allahu liman hamida nga dégg la subhaana rabi al azim wa bihamdihi subhaana rabi al ala yàlla loolu la ci dégg wallahu yaalam ma tasnaun Cheikh Ibra nag nee na moom foofu la féete moom la sëriñ bi junjaat ne amadawa bu sikru fahuwa akbar loolu ben aspect la la Cheikh Ibrahima Fall jàppoon ko japp man nga baye julle woor man yow xam nga ni baye Fall la man dama julle dama euh loolu nak man la conseil na Cheikh Ibrahima dafa ni bu ngeen deme ba bon da len julle ko woor mhm. ñu nga Fall Ndiaga lan moy bon mu bu ngeen deme bu bëgg oto bu rafet mhm. keur bu rafet mhm. jongama ju rafet tambali ngeen bon dem len julli ko nañ julli woor dem lan julli nañ julli loola benen aspect la waye julli taxu kenn tabbi ci l'islam ñak julli taxu kenn genn ci l'islam critère l'islam li sun borom digle yep suñ tolni buñ ko doxale won police tribunal du am Hmm. waaye yéen ñi ma koy laaja ñuy filmer yéen ñëpp teguwu leen ci hmm. waaw kon kon kon kon daf ci am foo xam te ni dañ fay nekk nit hmm. ndax euh, l'unanimité yàlla ñu bind ñëpp amu ko kon waxtu woo déggee fóotal nañu lislaam rek am na ñu ñëw di naan si pëdi bu subaa ngeen dégg ni journal yi génne nañu ña demoon Makka am na ko ci doon sàcc or te dafa fay deux millions et quelques pour dem ziar bi Seydina Muhammad ñaata yoon nga fiy dégg ñu dem nañ ba ñëw am na ku ndagg loxoom ku nangam lu ñu doon wuti kon ñoom d' accord kon critères yooyu mënut a ñàkk maanaam sànkar mhm. sànkar mhm. ci peñe guro yëpp la nekk sànkar mooy mooy guro bu yàqu mhm. ci peñe guro yëpp la nekk amul guro bu amul sànkar bi fi sànkar ñëwee la fi guro ñëw amul dëkk bu amul hôpital ñëpp a tawal lu caabi du Baay Faal dëkk julliwul am na ko xam ne du Baay Faal te du murit te du julli ah waaw léegi maanaam dafa fekk ni maanaam nii ñoom ñoo gën a fës léegi ndax yambar yi bu koor jotee ñu ragal xiif mel ni bàyyi fàlloon <laughs> ñeneen ñi tayel ñi ma xam te ni maanaam ba mel ni man rek daal di koy wér Cheikh Ibra daal njabootee ñëpp comme su ko defee mhm. bàyyi fàll yombul mhm. koo xamante ni mhm. sañoo am junni lekk ko sañoo am sa soxna mu am doom nga tuddee ko kala neex bàyyi fàll léegi yaay choisir sa doom bopp waroo choisir sa doom yow déedéet Cheikh Ibra Fall bu musaana am gan day wax seen tuwaay ni am na gan la seen tuwaay tuddee ko ko dañ toll nii nga am sa soxna mu am gan sañoo ko tuddee ki la neex sëñ bay wax ne tuddee naa ko diw te mënoo ci dara hmm. gaa yi sañ na ko bu nee na sama yaay nee na diw mooy njëkk bi waaw seen bàyyi faal dañ ko teg ci ñàkkum julleeg ñàkkum woon ak bëgg tux yàmbaar rek maanaam soo mënee dégg le mot pour conclure hmm. ils ont euh, ils sont nuisibles pour la société dana dana tekkeetul dara ñu koy jéem ñu koy jéem a ñu koy jéem waaw ñu bëgg cee rax mu mu mel na mu mel ne mel am na solo waxtaan waxtaan bu am solo la je pense que képp koo xam ne yaa ngi doon déglu rek jot nga si am ay njëriñ yoo xam ne jël ko si te di ñaan rek lépp loo xam ne ab yiw la ñu bokk li may may jeexle rek parce que jeex na mooy que moom nga nga nga noonu rek muy tey jën futur la Baye Fall war a am et dénkaane Baye Fall. dénkaane ak Baye Fall mu ngi tàmbalee ci ak set. ndax yoonu lislaam gii set a ko sos. te Cheikh Ibrahima Fall pionnier la ci biir l'islam ku ko mabal mabal nga diina mm-hmm. kon kilim bii ngay romb ci medd geeg xasaw geeg sol 39 yére yéeg sol 15 caaya yoo xam te ni doo yeewu suba jàpp bokkul ci Serap Fall il était trop civilisé. Mm-hmm. donc kon critère gi jiitu mooy Baye Fall yi fa xam ni wala boog ñiy woote ni ñoom ca doon bokk. Mm-hmm. faaw ñu ni seen Cheikh Jëmb Fall mais fi nekk Cheikh Ibrahima Fall. xool sëtu Cheikh Ibrahima Fall yi ba ci borom ndigal Fall. kenn ci lu mucc. te sëriñ bu nekk sa taalibe yaay tegtalam mm-hmm. ku la gis ni nga élégance bu ne ci borom daaba nga bokk kenn du parce que nii lay solo daf baax ni mm-hmm. léegi nag ñu bëgg a roy seen sëriñ ba noppi bëgg a mel neneen mm-hmm. set mooy critère bu jiitu a pour nga doon ab Baay Faal faaw nga doon ab jullit te critère l' islam am nazafatu min al iman ngëm mi ngi tàmbalee set ñaareel bi mooy lu waay di topp bëgg cee jëriñ da nga koy jàng su ngeen yeewoo suba rek bëgg fi nekk ni ay journaliste ngeen indi seen mais du ngeen dem wala su ngeen demee dafa foog bu ngeen fa yeggee apprenti ngeen daal doon nit ci li muy dugg di ko gëstu dafa war a fexe jàng ko ba mu xam ko dañuy dëgg dañuy dëgg loolu suñ ci wax ne istaxilu bil xifzi wa tilaaw da ngeen sax ci njàng ko ba mokkal ko xam-xam bu mu a doon kon dañu war dem jàng ji lan mooy mooy ñaara ko ñetteel bi ci des ñoo ngi koy bëgg favoriser mu bëgg dem ba mel na lu xew la te xew te du ma sa xew fi am mooy bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi topp sa dund mhm. wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaana gis nga nit ku fonkul ndeyam fonkul bàyyam ku mu ni fonk na ko wax ko dëgg mhm. yow da nga ñàkk fonk sa baay bale ca fële eh, ñëw fii bëgg fonk sama baay foo ko waxoo ko dëgg soo fonkulee sa bopp boo ne ma mën nga yaakaar tey ëllëg fonkoo ma waxoo dëgg kon nanu xam ne càllal ak doomi aadama pour mbiram mën a yëwan mhm. mooy faaw mu teel a waggar ay waajuram mhm. teel leen a jox cër bi moom ci ñoom mhm. teel leen a noppal ci lu bëri waaye dem ba am trente trois ans ci daara dem ba am quarante ans ci daara cinquante ans mënuloo sax sa bopp dara waxuma la say waajur gàccal boo deewee da nga sonn te ku xas sa sëriñ yàq ko yóbbee sëriñ bi lu mu mën a ñaan mën a ñaan bu la ñaanalee du romb plafond bi gàccal kon nanu waggaruwaat liir nga ñu jox mm-hmm. ma la mm-hmm. du ma la xajoo sa ndey rek xaj mm-hmm. wax bi nga demee ba dëgër këcc nag mën a raam mën a wuti at bi mën a daw fii mën a dóoru kóor mën a sikar ci laa lay a soxla koo la woon ku dul moom boo demee ba mën tey a keneen doo nit naa xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dees mu koy yi man ko bàyyi wax xel te xam ni doomi aadama mën romb doomi aadama parce que maanaam suñu bëgg dugal Baye mooy ci dof ci sañ-sañ ci def sa lu la neex seetu boobu dafa toll li mu feesoon yàlla yëpp nekkul woon ci ay sañ-sañ fa def lu ko neex póol la daan tux te daan wax ni ko mënta taale ci jaww ji ma koy taale na nga ko def su fekkee ne nag ñu ñàkk tux ni man ay yambar lan comme ni koy waxee ni ay ibaadu bay fall lan kon garaawul nan nekk ay ibaadu bay fall waaye bu soobee yàlla duñ naan kon yii ñu tuddugal bokk ci eh. na ko ci génn te jéem a roy ci ci ci Euh, bëri njàmbaar akum jom te lii la des nag taxawaalu bii nii mhm. ak ñàkk liggéey bi Cheikh Ibrahima newul woon ci yooyu mhm. juróom fukki boutique la amoon fii ci Ndar waaw dëkk boo wàcc see Ibrahima Fall am na fa titre foncier kooku daawul woon nelaw mhm. talul woon yi gars yi tal waaye dëkkee waajal rek ak ku taal cigarette nga fayal ko ko ku tàmbali kaasu café nga yeggaleel ko ko boo tabax sàkke doxuma la kër ab Baye Fall nekkul ci nekk jom yooyu am na solo bu ne lay bàyyi rek nga nga nga daal di tàggoo xanaa sant la sa sëñ Noor Ba. ah sëñ sëñ Noor moom àndul eh sëñ Noor mooy lan. waaw moom daal da da da day sama waay la dama ko namoon lool sax gis naa ko gis. sëñ Noor di ko sant bu baax a baax di sant madame Thérèse ci ci ci lunettes yi ak mboolem ku doon seetaan rek sant nañ ñëpp. man xam nga daa mënut a tàggatoo rek su ma xam si rafal du ma jeexal ndax nii. non moom kay da da jël taxi rek dem kër ga yàgg waat sama waxtaan. dañ koy dañ koy defaat sax parce que mooy li wax rek fii ba màggal gi incha doon amal ay plateau yi xam ne day day dem ci ku tedd ki ndax mu ñëwoon mu ñëwoon waxtaan ci ku tedd ki te duñ jaar ci buntu bi muy muy muy Cheikh ah, mhm. seen kilifa yi mhm. di sant euh, wax dëgg yàlla mboolem koo xamante ne nag ngi ci dëkk bi ñuy wax ndar te mhm. euh, ñu bokk ak yow sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima siyaar bu baax baax sama sëriñ mi ngi fii ci ginnaaw rek bi ngeen di ñëw romb ngeen buntu këram mhm. xam ne ci loxoom laa mokkale alxuraan mu dul seen maxsin mhm. xam ni léegi rek maa ngi romb ci buntu kër bi ñoo ngi toog ba saa yuy joxe addiya nga noonu déedéet nag ñëwul joxe addiya àllarba suwaay ah. kon maa ngi sant ñëpp an <laughs> suñu borom defar lépp bak sarafal di di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp yéen ñi nga xam ne teew teewlu woon seen émission bi nga xam ne di penc mi di am Saint-Louis TV donc saa su nekk rek euh, ñu koy defee képp koo xam ne rek war nga fi mën a toog waxtaan comme ni nga ko waxee rek ñaaraakee egsi na màggal gi egsi na dañuy ànd ak yéen rek ci lépp li nga xam ni dafa dafay jëm ci diine jëm ci ku tedd ki ba tax na rek ñu leen jox dif ak ci yeneen incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëf di gërëm nag sama sama sama sama sama sama sama caméraman sama monteur sama réalisateur ñu Ousseynou Noobo ak euh, kii fi àndal jaa ngeen jëfati